bokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbéttu contentement baax a baax ñu ngi amati mbéttu tey bu baax a baax ñooy seet si waa mooy Kalanda ñu fas yéene waxtaan ne mooy ci actualité yi am na fi noonu laa def si li nga xamante mooy garabu ngóor gi gi may jaay muy garab am solo goo xamante ne mu ngi faj lu bëree bëri li ma wax gars yi tout le temps rek mënumaa faj koo xamante ne dafa judduwaale yow mais képp koo xamante ne da nga néew kattan wala ay jafe-jafe xamante ne mooy ci côté gaaw a daanu bu ñu jëflantee incha allah bi dina deñ da ngay ku ci soxla dafa may war sama numéro téléphone 77 745 32 31 77 745 32 31 am naa garab ndoxum siti jaayu ma ko dama koy may te yàlla tax gratuit ku am ndoxum siti ñëw may ko garab garab ndoxum siti gratuitement may la ko Kalanda maa ngi lay nuyu baax di la siyaare waaw euh, abu ginnaaw ma sante yàlla jul ci yeneen yàlla Muhammad gërëm sama ñaari waajur maa ngi gërëm sama sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass waaw di gërëm sama sëriñ tamit Cheikh Abdou Aziz Ndiaye. Hmm. depuis États-Unis di ko ñaanal jàmm. Hmm. di ñaan aussi Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. Hmm. ak sutura quoi. waaw di gërëm tamit waa Casamance. gërëm waa Medina Souane. waaw di gërëm tamit suma benn kilifa bu ñuy wax. waaw waaw di gërëm waa Medina Souane. <laughs> benn kilifa quoi. bu ñuy wax Moustapha Dabo. maa ngi koy gërëm. waaw di gërëm Mokhtar. Mokhtar Diatta. Mm-hmm. waaw di dem Ziguinchor tam di gërëm suma benn grand bu baax Etienne moom <laughs> su ma tuddee rek waa Ziguinchor képp ku fay yeewoo rek mu ne Etienne rek ñoom dinañ comprendre quoi waaw waaw di di di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal tamit kilifa gu mag. Mm-hmm. waaw muy Thierno Sam sa mm-hmm. di ñaan yàlla defal ko jàmm. wéral ko defal ko sutura. démb ak barki démb yëpp këram laa añee. Ah? waaw di <laughs> di gërëm tamit sama xarit ci biir kër gi. ñu koy wax Mbacke di gërëmaat sama beneen. kilifa ci biir kër gi waaw ñu koy wax Kalidou Anne waaw maa ngi koy gërëm yëpp di gërëm waa Fuuta di gërëm waa Añam mm-hmm. waaw di gërëm nit yu baax yi nekk ci àddina bi yëpp waaw di gërëm di di di ñaan yàlla tamit mm-hmm. dëkk fi euh, jàmm sax fi waaw parce que tamit Sénégal réew jàmm la quoi waaw réew jàmm la réew sutura waaw réew la boo xamante ne nit ñi dañoo war a am jàmm dañoo war a partager si jàmm dañoo war demalante si jàmm dañoo war a dikkalante si jàmm parce que loolu kese moo fi xaj. dëgg la moo fi xaj. dëgg la jërëjëf waxtaan bi léegi ñu dugg ci mooy li nga xamante ne mooy waxtaan bu am solo ñu fas yéene waxtaan tuuti rek ci li nga xamante ne mooy fan yi da nga def benn sorti sortie bi nag peut-être am na benn polémique bu mu indi woon ci li nga xamante ne mooy ci dëkk bi ah, gis ku ci mel ne Lac de Guiers 2 génn def ci ay révélation yi am solo gis nañ tamit ku ci mel ne Mathieu Perratin mi génn def ci ay révélation am mais sortie bi sortie bi ci combat bi ba mu taxee la wala bañ gisee image yi am barki semaine barki démb ci diggante Balla Gaye ak Lac de Guiers mu nekk image yu àdduna bi rafetlu boo gisee jotaay boobu dafay mel ne loolu détail mu ci fa am wala waaw alhamdulilah alhamdulilah euh, ma santaat yàlla waaw may wax ne rek xam nga des fois émission yi nii bu amee mhm. gars yi dañuy dañuy xool euh, contexte bi rek euh, maanaam dañuy xool contexte bi nii rek. Mhm. du ñu egg au contenu quoi. waaw du ñu egg contenu bi xool vidéo bi bii bi lu muy wax quoi. waaw euh, dégg naa nag Mathia Pereira wax na si. Mhm. waaw Lac de Guiers 2 tamit wax na si. Mhm. comprendre nga la ma la wax. Euh, mais Mathia suma xarit la Mathia ñoo bokkoon classe. depuis sixième ba CM2. Mathia Pereira ñoo bokkoon classe suma xarit la. waaw man amaana li ma xam ci Balla Gaye 2 ak li ma xam ci Lac de Guiers 2 mun naa ne. comme xamul ko xaaj bi sax xamu ci lu bëri. la waaw mais suma xarit la maa ngi koy ñaanal xam nga ba pare moom ak waa kër Balla Gaye ak waa kër Lac de Guiers yi seen diggante yàlla moo ko tudd mu nekk si tamit di leen défendre. waaw défendre boo xamante ne képp ku bëgg Balla Gaye wala képp ku bëgg Lac de Guiers mhm. da nga koy man tam du ma def lu dul rafetlu ko waaw parce que tamit loolu moo ko war nit boo ànd ak moom waaw da koy défendre waaw beneen na mhm. ko Kalanda dafa wax ci réconciliation wu. Lac de Guiers ak Balla Gaye man pendant des années. wala pendant des mois. maa ngi toog di exprimer wu di wax na ñoom ñaar dañoo war a nekk. dañoo war a jiboo ñoom ñaar amuñu problème de. waaw problème bi ñu amoon moom mooy nit ñee fi nekkoon doon wax la de Guiers dafa nekk ci kaso. Balla Gaye euh, daf ko war a seeti nangam ak nangam loolu moo nekkoon sa loolu loolu passé na. loolu passé na la de Guiers ak Balla Gaye barke Seydina Mohamed comme li ma waxoon loolu laay waxaat. Mhm. bu ñu àndee dañoo war a ànd bu ñu àndul dañoo war a ànd. parce que am na ay relation yoo xam ne arrière parental la. Mhm. seen papa yee ko fi bàyyi ak seen yaay yi. kon ñoom ñaar ñu ngi leen di ñaanal seen jiboo bi mhm. yàlla na sax dàkk. yàlla bu ñu réccu li ñu doon àndee. waaw man li ma nekk di xeex li ma nekk di prôné man. waaw en tant que être humain en tant que nit. maanaam nit yi. wala nga nekk homme de célébrité. nit ñi éviter di nekk ak ay nit yoo xamante ne euh, homme de célébrité nañ éviter di nekk ak ay nit yoo xamante ne duñ leen wax dëgg wala ñi ñëw si camp bi wax lii dem ci camp bee wax lee comprendre nga la ma la man loolu laay nekk di kaas mais ça ne va pas dire que mm-hmm. damaa wax Balla Gaye de euh, lu ko naqari wala damaa wax la dëgg de lu ko naqari wala jaar nii wala ñu jaar nii mm-hmm. am na ñoo xamante ñu may woo jaakaaroon ne maa la dëgg de yooyu vidéo yu waaw tout la soirée ñun ñaar ñoo ko passé gis nga vidéo yi kon loolu ban problème moo si am Lac de Guiers nag su mag la comme Balla Gaye ni mu nekkee su mag hmm. war na mu mën a woo waxtaan ak ma hmm. dee ko waxee nii Balla Gaye war a ne ma lii ak lii boo koy defee nii moo gën a rafet comme man bu ma gisee benn affaire boo xamante ne te maanaam rafet lu ma ko si ñoom ñu may taxawee wax ko ñoom war nañ ma mën a woo en retour waaw euh, conditionné ma ne ma defal nangam wala defal nangam wala defal nangam hmm. comprendre parce que loolu moom moo gën a rafet euh, euh, ngi nag di gërëm Baye Ndiaye quoi waaw Baye Ndiaye waaw maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal li mu sumb nii waaw yàlla na ko yàlla àggale si jàmm mook Aziz Ndiaye yëpp ah waaw ak waa alburaax li ñu sumb yàlla na àgg si jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad parce que ñun amul amuñu benn intérêt boo xamante ne maanaam yàlla moom moo wax ni bu jiitalatee nit nangul ko parce que man maa ko jiital wata di sabila man anaabi ilayya ñun dañoo war a topp ñu yoonu ñun jiitu waaw Aziz Ndiaye li mu am nii ak ñoom Baye Ndiaye ñun dañ koy rafetlu te dañuy ñaan yàlla mu yokk comprendre nga ma parce que bu dul dara li ma waxoon loolu rek laay waxaat ñoom ñi ngi révolté wu di fexe ay jeunes yu bëri di réussir ndax seen ñaq waaw te pourtant am na yeneen ñoo xamante ne ñu ngi koy def mais inconnu lañ mais ñoom ay homme de célébrité hmm. kon dañ leen ñaanal yàlla yàlla yokk ko waaw mais tooguñu fi pour wax wax bu ñaaw tooguñu fi pour jëf-jëf ju ñaaw dañuy wax maanaam kuñ ci war a tegaat ci raay bi tamit ñu gis ne yow euh, li nga nekkee nii am na loo bàyyi wala am na loo xamante ne boo ko defee dina la jëmee kanam mm-hmm. non dañuy dañuy wax suñu kentulaay kàttan parce que en retour yoo lay amal njëriñ en retour yoo lay amal njëriñ comme man des fois mun naa dajek benn inconnu mun naa dajek abu mu woo ma wala ma def benn affaire boo xamante ne mu recadré ma ne ma ëllëg defal lii ak lii ak lii ak lii ma def ko parce que résultat bi ci man lay ñëw mm-hmm. waaw kon nit bu demee bala lay conditionné sax wala mu wala mu lay rectifier maanaam bu nekkee lu positif la da ko war a nangu parce que yonent yàlla Muhammad da doon def dars <laughs> Umar saxaaba laaj ko ne ko yow ndax sa décision bopp la wala yàllaa ko wax ah voilà <laughs> waaw ba pare nit ñi bu ñuy wax bu ñuy wax maanaam tiktokeur yeeg mhm. ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wax ak mu nekk journaliste muy kii que ce soit maanaam booy wax del wax sa diggante ak yàlla mhm. waaw parce que bu ragal làmmiñu nit ñi surtout waaw bu ragal làmmiñu nit ñi parce que yénti yàlla Moussa moo ne woon yàlla damaa bëgg nga musal ma si làmmiñ bu bon parce que man damaa ragal làmmiñ bu bon yàlla na ko li nga may ñaan man bu ma ko amoon jox ko sama bopp <laughs> ndax man man maa sàq nit ñi di leen jox teraanga di leen dundal ñii dem di gërëm keneen ah <laughs> waaw kon alhamdulilah maanaam am na yoo xamante ne jarul ay polémique mm-hmm. waaw mais nit ñi buñ gisee lu ñu war a wax rek dañ koy wax buñ gisee li nga xamante ne tamit jaaduwul ñu wax ci. dëgg la pour aajo yi rek loolu la rek. dëgg la dafa mel ne sa sa bari yi xamante sukkandiku parce que def ko li nga xamante mooy actualité parce que actuellement boo xoolee réseau yi saa boo duggee kalanda la <laughs> c'est-à-dire gis nga loolu mën naa ne euh, yàlla moo koy def si jàmm parce que yow boo xoolee bi nga may woo man wa man maa ngi ci yoon bi di ma maa ngi sama bopp mais de temps en temps tam nit ñi mën gis ne ah. kalandaa mi de bu ñu ko seeti jee waxtaan ak moom lii ñuy waxtaan ak moom nii du ñàkk mu am ci tuuti maîtrise parce que li ma tàmm di wax loolu lay waxaat man football ay suivre ñoom Balla Gaye ak Lac ay lutteur lañ mais juste dañ maa yar à ma nekk xale am ay 7 ans ay 8 ans màggee seen kanam bëri si ñoom comme moo tax fu waaye fàqee rek da yaakaar ne kii buñ ko laajee dina ci wax dara waaw léegi nag Balla Gaye ak Lac li ma xam ci ñoom lu rafet laa xam ci ñoom lu baax laa xam ci ñoom Balla Gaye Baye Ndiaye mi ngi dégg li ma wax jour bi muy finaalu ak Aline Seye numéro 2 Stade Assane Diouf. Baye njaay xam ne li may wax Balla Gaye si ñi mu njëkk a dajal boobu maa ngi wàcc école 6 10 heures xaw ma 11 heures Balla Gaye man la dox ba dajeeg man ne ma fan nga jëm. ma ne ko non damay soog a wàcc mu ne ma gaawal nga ñëw nga fekk ma kër ga. tele lañ fa teg télé sharp bu ndaw. vingt cinq mille la daan jar ci jamono boobu noonu. dëgg la Balla Gaye ne ma télé bi laa bëgg a jël yóbbul ko sama yaay ba tey mu tabaxal ko kër. ba tey mu yóbbu ko màq ba tey mu fexe ñu bare bëree bëri ci famem mm. dajewaat dëgg la mais kooku kooku kooku loo mën a def lu dul ñaanal ko la dëgër de dafa fekk seen waa kër ci juga ko daanu mm-hmm. waaw mu fexe ba génnee yaayam ak papam ci souffrance mm-hmm. tabaxal leen kër gu rafet jàppale ay magam mu jàppale ay rakam kooku lan nga ko lan nga ko mën a waxal wax bu ñaaw mënoo ko waxal dara lu ñaaw di ñaan yàlla nag Sénégal nit ñi yenn polémique yi comprendre nga lu ma la barki alxuraan kan du ko mat. waaw du ko mat di ñaanal tamit sama mag Sa soo waaw mag Sa di ko ñaanal yàlla jàppale ko moom tamit suturaal ko. image ñu gis si ba ba Balla Gaye la rek image boobu lañ bëgg a xaar ci Sa ak Balla Gaye ah. waaw Sa Thiès ak Balla Gaye waaw Sa Thiès ak amu si. Mm-hmm. problème amu si malgré nag réeroo fépp la mun a am parce que bëñ ak ñoo dëkk te des fois comme ni ko gars yi di waxee ñu laale mais ku xam Balla ak nga xool dernier combat Sa Thiès yi satisfaction bi mu ci am da ngay xool xam ne kii nii nii nii nii nii ku am yéene ci moom la ku ko naw loola Sa Thiès boo gisee combat Balla Gaye li mu ciy daj xam ne kii amul sago ci moom Sa Thiès combat Balla Gaye bi passé bi ñu ko wanee ci bukaayu Balla Gaye gis nga ni mu doon def tuutee des mu dee boo xamee nit da ngay xam ne kii tuutee des mu dee waaw di ñaanal Ama Baldé tamit combat bi mu jëm yàlla na ko si yàlla suturaal may ko si ndam bu sedd guy waaw yàlla na ko si yàlla suturaal may ko si ndam bu sedd guy di wax waa Casamance yëpp ñu jóg côté sud bi mhm. waa Vélingara waa Ziguinchor côté Kolda bi mhm. ñu xam ne combat bi tamit combat capital am la waaw te tamit ñoom lépp lu leen war ci Sa war leen ci Lac de Guiers 2 mhm. war leen ci Balla Gaye numéro 2 war na leen ci Ama Baldé waaw parce que Ama tey Double lépp lu mu def Sénégal papaam Fallaye Baldé joué na ci lu bëri comprendre nga wax na ko yëpp jàppale. waaw na ko waa Kolda jàppale na ko waa Gambie jàppale. na ko waa Guinée Bissau jàppale waa Gaabu. Sinthiou Ousmane. Sinthiou kër yi ñëpp génn jàppale ko ñu xam ne combat bi combat capital la si moom combat la aussi bu mu soxla. di ko ñaanal yàlla yàlla may ko si ndam bu kawe njortam. dëgg la lan daa mel dëkk boobu yaa ngi tudd si njëkk kër dëkk bu sori <laughs> mais mais mais Lac de mu jël Ada def choix bi ci Ada Fass Lac de Guiers rek moo may chance. Mm. Ada Fass min géej waaye dugg daan fi guy yi dugg jëlaat fi Lac de te seen i tanoon rek lay jël. waaw alhamdulilah Ada moom. waaw mi ngi bëgg a miin géej waaye parce que ci rawul la njëkkee woon. waaw rawul la njëkkee waaw waaw si rawul la njëkkee woon kon Ada Fass mi ngi bëgg a miin géej waaye te en plus aussi la de Guiers 2 tàmm na may sens. waaw parce que Papa gis nañ mu daan ay génération ñu bëri ñëw am benn combat ouverture moog Baye Mandione daan Baye Mandione donte bi mu bëreeg Baye la de Guiers 2 fekk na ko mu bëri Eumeu Sène ñaari yoon. daan Yékini. daan Yékini junior daan Tapha daan ñeneen ak ñeneen mais Lac de Guiers 2 da kaa tàllal ay loxo da may sens. Boy Niang bi mu jeexalee ay moromam. daan ñoom Dolf daan ñoom Lester daan ñoom Saaka Dior. comprendre nga wax daan Sa Thiès Lac de Guiers 2 daa ñëw may ko sens. Siteu tamit jóge sax ci defet moo guy gi. waaw Lac de Guiers 2 ñoo may ko sens. kon loolu lu mu tàmm la. waaw mais nag combat bi moo différent ay positionnement par rapport ak ñi mu doon may sens ak combat bi. Hmm. maam Ada Fass dafa nekk produit làmb en plus challenger la. dëgg la de. maam dafa am ay xeetu mbër yoo xamante ne maam comme genre ñoom Siteu ñoom Ama Baldé ñoom Ada Fass ay produit làmb la ñun dañuy dundal làmb. comme comprendre nga loolu wax. Mhm. Ada tey le fait que muy bëreeg la de guerre de du palmarès moo ko fa yóbbu. du prouvé moo ko fa yóbbu. mais c'est-à-dire nit ki mu doon la. yàlla moo leen sàkkee noonu ñoom li ngay ut téeméer ñoom bu ñu ci amee benn juróom wala fukki dërëm dañ koy jënd. parce que yàlla moo leen defal loolu. waaw la de guerre de koy xaaree ci combat bi. moom mooy arbitre la mu toog ay tànkam duma Ada Fass daan ko te démb man ak moom ni ñu waxtaanee ci combat bi waxtaan nañ si lu sori wax dëgg yàlla lu profond barke Seydina Muhammad décidé na si waaw décidé na si ci ci ci ci préparation tënk na ni mu koy préparé te xam naa ni la de Guiers bu ñëwaatee dina différent ak la de Guiers bi ñu doon gis si làmb ji waaw. maa ngi jël ay responsabilités mu jum ci biir combat bi parce que Adam bu ko naree bëriwaale ci mën am def ci waaw ma ma maanaam ay ay ay responsabilité ci biir làmb mooy Tapha Gueye li mu mës a wax Lac Rose. waaw mu ne ko j'attaque je cogne et je gagne. Mhm. ça ne va pas dire que maanaam ngay attaquer sans contrôle. ok da ngay attaquer avec manière. Mhm. comprendre nga ma di contrôler di diriger ak mental. la dëgër de ku ko xool xam ne muy sànjaafu làmb. Mhm. yombul. comprendre nga ma la wax mais li ma wax barki Demba Ndiaye loolu laay waxaat maanaam la dëgër combat mu ko Arfa dafa nekk combat boo xamante ne tey. bu liggéeyee li mu war a liggéey. toog si ay tànkam bu arbitre sifflé Ada Fass da nga naan ko na taxaw nga daan ko wala nga génnee ko làmb ci loolu moo mun a am. Hmm. parce que ñoom ñaar seen seen seen seen taay sont pas comparables. te la dëgër de ñun xam nañ li muy bëri gis nañ bi Ada Fass di bëri. gis nañ ko de. <laughs> waaw la dëgër de la dëgër de Ada am na combat de. Ah. waaw Ada Fass am na combat yàlla nag mooy maye ndam. dama ne bu shooting gi génnee mbaa du am mbër mu delloo avance. shooting bi waaw loolu laay ragal nag <laughs> loolu laay ragal shooting yi bu génnee ragal naa ragal naa laa muy jaxasoo de. wala ñu yokk wala ñu yokk mois yi ñu koy bëree. <laughs> mois bi jege na de. waaw loolu laa ragal de. dëgg la ragal naa. mais mais kala bi ma tijjee mooy Siteu ak moot loo ngeen bëreeg ñaari mbër yëpp. bëri ngeen ak Siteu bëri ngeen ak Modou Lo mais ñaari mbër yooyu noonu seen combat yi am ci làmb benn rek la de moo toog devant public wax ci télévision que ne ba may ak ba ma dalee bëri ci làmb Siteu ci laa centré mystiquement jàpp nañ ma ci làmb moom la dëgër wax ko. te mooloo ñu bari euh, ne mbër mu gën a pare ci côté mystique mu Modou Lo la. Hmm. mais ngeen bëri ak Modou Lo ak combat yi ngeen bëri ak Modou Lo mais combat ak ci da ngeen rafetlu lu mel noonu doo may analyser ci ñaari adversaire yooyu. waaw c'est-à-dire euh, ñaari adversaire yooyu noonu Siteu ak Modou Lo hmm. ay adversaires yu différent lañ avant ma ci avant ma ciy wax lu profond. Hmm. waaw dama leen ni dama dañ leen di ñaanal Siteu ak moo loo dañ leen di ñaanal parce que mën naa ne làmb man ci génération bi ma bi ma fekkee di seetaan làmb si ñoom la de Guiers si ñoom Balla si ñoom Modou si ñoom Siteu ni mhm. mën naa wax ne la Siteu ak Modou Lô ñoo ci ëpp mérite hmm. waaw lu tax ñu ëpp ci mérite waaw Modou Lô bi muy bëre mhm. dafa fekkoon ñoom Garga Mbossé Rock Énergie dëgg la fekk fa ñoom Baye Peul fekk fa ñoom Dolf fekk fa ñoom Maîtrise fekk fa ñoom Moussa ñu ne kii xale la ak taay bi ñu ne du dem est-ce que nga li ma mi ngi bëre première combat am jour combat bébé Saloum ak Mansour Diop numéro 2 bi mu bëre ak Mbaye 20 ans. boo ko xoolee comédien nga koy teg. amul bëñ amul dara ñëw si làmb ji ñu naan kii day foo. tey mu war a bëre combat royal. kon loolu mérite bu rëy la. mérite bu garaaw la barki Seydina Mohamed Siteu ak Modou Lo war nañoo jàngal nit ñi ne loo gëm. loo gëm rek mu fekk si la. dëgg waaw mais nag dañoom ay euh, maanaam ay différent ci biir làmb. Mhm. waaw lan moo leen xaw a départagé. Modou Lo dafa nekk mbër boo xamante ne. Modou Lo dafay xeex day xeex te ci biir xeex bi boo ko sàccee day bëre ndax gis nga ni mu bëreeg Paul Maurice dóor na ba jaayu ba fàtte ay tànkam Paul Maurice jàpp ko tànk bi di ko nooju mu njaab njaabu golo Paul Maurice di ko dàq mu mbot ko mbotu tàqali ko comprendre nga loolu hmm. dóor ko ay rafal daw plaqué ko hmm. comprendre nga gis nga mu bëreeg les deux les wër ko ndoom ba jàpp ñaari loxo mu baravale ko indi ko comprendre nga mbër la boo xamante ne dafa def lig ko hmm. dafa def lit libre ba pare nekk maanaam maanaam def CEDEAO Modou Lo mën na bëre yëpp. waaw comprendre nga ma kon côté technique pure. Mhm. moom moo ci ëpp Siteu ay for mhm. mais Siteu tam dafa nekk mbër boo xamante ni ci diggante bi daf see yokk force lu ñu bëri bàyyiwul xel. waaw Siteu combat moog Zarko la màgg. waaw Zarko am na bëre bi muy bëre boo xamante ne boo amul kàttan dëgg doo ci rëcc parce que Zarko dafa mun a song. dëgg Zarko c'est rare ngay gis mu songu songu la ba dajale la su ma juumul songu boobu muy songu ñaari mbëri ci mës a muy Siteu ak Sa Thiès Sa Thiès la fi songu Sa Thiès jeexal daw pédale mu wër ko ndomba Sa Thiès jaayante ba génn ci wër ndomba eh, eh, eh. mu defaat ko Siteu Siteu bëreeg moom bëreeg moom bëreeg moom ba suruxal ko fexe bopp bi laal suuf kon Siteu mi ngi maa màgg ci diggante bi te gars yi bàyyiwuñ si xel te gis nga ni mu bëreeg la de guerre de la de bi mu yor ak doole ji mu yor Lac de Guiers 2 ku contact ak moom ñaari fan lamb yi Lac de Guiers ci la ku ak moom ñaari fan tooy. laaj saa tuwaat koy yeesa du yeewu. li ma la wax ku contact ak moom ñaari jours yi tegaloo cumulé ko. da ngay feebar. gi nga Siteu ñëw jaayante ko bu Lac de Guiers xeexee mu xeex bu bëree mu bëree. comprendre nga loolu. moo tax combat bi nii combat bu metti la. Mm-hmm. waaw combat bu metti la waaye ñoom ñaar dañoo différent ay fort yoo xamante ne dañ ko am mais Modou Lo daal en tout cas boo ko bëggee daan. da am concentration ci biir géew. waaw Modou boo xoolee ñëpp a ngi naan Balla Gaye bu arbitre sifflé da koy agressé mais day direeku di ko xool. Ah, daf ko xam. saa bu sëggee mu sigg jox waaw Modou Lo heure bu nekkee ci faiblesse Balla Gaye da ciy profité. Balla boo xoolee seen premier combat moom Modou Lo Demba Diop dóorante nañ ay rafaal nii mu daw bal Modou Lo mhm. di ko laalli Modou Lo kepp naax bi jël loxo bi mhm. kal ko kalum biti mais Balla Gaye xam na ne fi mu yegg Modou Lo ak Modou Lo ndaanaan bi mu doon daa jargandeel ak moom daw ak moom Modou Lo teg tànk mu tëb Modou teg tànk bi mu tëb ba muy perte équilibre neexul daan de neexul daan léegi li ma la wax nii boo ko seetaan noonu mbapat man Modou Lo dama mbapat unité 10 mhm. batika mi batika waaw moo ko daan mu toog di jooy jooy metti Alioune Seye numéro 2 moo ko yëkkati ne kii champion lay nekk <laughs> barke alxuraanul karim batika mi ma lay wax nii tey moo ko daan mu toog di jooy jooy metti ma seetaan un an après mu ñëw fii stade Alassane Djigo maa ngi nekk xale bu ndaw <laughs> barke naa xam muy bëreeg muuma dëgg la muuma jàpp tànk maanaam muuma am na lu muy bëre sax da ngay gis mu may ko wet may ko wër ndomb te boobu xale la ma ne kii li mu nar a def ci làmb jeeg seegul ndaanaan dëgg la ba pare ba pare ba pare mu ñëw changé maanaam mu ñëw changé beneen philosophie ci làmb ci Modou Lo am Ama Baldé ñëpp ne Modou Lo bu préparé wul mystique Ama Baldé dina ko dóor ba mu bëgg a dee ndekete Modou Lo bu ñëwee ci làmb ji ndoxu zam-zam lay laal tari xaaroot ak maaroo daal di laal ci yaram bi ne xaadim nga ne abal leen ma géew gi non indi innové loo xamante ne maanaam mbër bu ko fi dee dañ naan la suba ngay dee wala yaa ngi si risque waaw di ko ñaanal yàlla tamit ba pare euh, fexe na boo yu bëri xam ne ba <laughs> fexe na ba xam ne boo yu bëri euh, fexe na ba euh, tax na ba fexe boo yu bëri jël làmb def ko muy passion bëgg-bëgg rek bañ leen a dépassé waaw tax na tey parce que damaa dégg benn booy bu nekk Euh, rock énergie benn booy bu ñuy wax Mbacke Faye Mbacke Faye waaw mu bëre ba pare mu wax lu am solo mu ne Modou Lo daf leen a si jaamu yàlla mm-hmm, mm-hmm. non seulement làmb carrière bu gàtt la mais mu motiver leen si jaamu yàlla waaw jarul mu lay xañ yenn parce que yoo xamante ne ay mbirum àdduna la comprendre nga la bul di fexe mu lay xañ yenn yi waaw di ko ñaanal mook Siteu yëpp comprendre nga la ma objectif bu ñu amoon ci làmb tey ba yegg si fii yàlla leen si yàlla suturaal Siteu tamit barki Dembo Ndiaye gis nañ lël bi mu def jàmm gën fexe jël ay cinquantaine de personnes mm-hmm. daal leen di jongal xale yooyu noonu loolu dañ koy archiver. waaw loolu loolu loolu ñaan la boo xale moomin la. xale moomin li mu def noonu ñi ngi ñaan yàlla yàlla defal ko ci ndam boo xamante ne lu koy siggil ci àddinaam lay nekk maanaam maanaam ndam boo xamante ne du du ma ko ñaanal ay ndamu làmb <laughs> non non. maanaam mu am ci ndam boo xamante ni ouverture lay nekk ci moom yëkkati ko ci moom surtout bi muy commencé di daangi daangi di juga ko daan di bëri ay 40 millions 50 millions. di baax yi la fexe ba jënd 50 cag-cag. woo jàmm gën booy am booy yi nga xamante ne amuñu xëy yëpp mu daal den koy délivrer booy di liggéey di def seen poste di jàppale seen famille waaw Siteu société la waaw genre nit yooyu noonu Modou Lo musuma teg këram sama tànk këram xaw ma fu Modou dëkk mais dégg naa ñu bëri jàpp am am na loo xamante ne nag wóor na ma mhm. parce ñoom super jamono ñoom Dolf ñoom Malick Diop Maîtresse ñoom Pape Cissé numéro 2 uh-huh. ñi nga xamante ne jàppale na leen ba ñi nga xamante ne seen carrière mënul continuer si làmb jàppale na leen ci yeneen faat na loolu moom leer na ma moom comprendre nga ma wax mm. kon genre nit yooyu noonu ay référence lañ te ay modèle lañ ñu ngi leen ñaanal lépp luñ mën rek yàlla na yàlla defal leen lu ko ëpp parce que mérité nañ lu ëpp loolu quoi jërëjëf ab waa tàggatoo moom du ne euh, waa Géejawaay bi yëpp waaw parce su ma defee mm-hmm. fu nekk la ma nit di woowee. waaw su ma defee émission fu nekk la ma nit di woowee moo tax damay profité di gërëm suma benn kilifa mhm. Mamadou Xaban waaw suma kilifa Mamadou Xaban mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla wér yàgg sa soxna maa ngi lay ñaanal gudd fan lépp loo ragal yàlla boo ko séen ci barke yonent yàlla Muhammad waaw di gërëm sa soxna tamit depuis Touba mhm. nit ku baax nga di gërëm sama mag sama lépp Elton. waaw nit ku baax la barke alxuraanul karim nit ku baax di ko ñaanal yàlla foofu mu nekk ci États-Unis mhm. lépp li nga xamante ne mu ngi ko fay sàq wala mu ngi ko fay ut yàlla yombal ko ko comprendre nga la ma la mhm. waaw di ñaanal alam daar Babacar Sarr waaw ma ko Alioune Seye numéro nit ku baax ku ñàkk ki koo xamante ne xol bu laab la yor daal waaw di ñaanal Alioune Seye numéro 2 tamit pourquoi pas combat mook Tapha waaw ñu moog Eumeu Sène ngi bëri lu ñu ciy wax mais mais mais waaw waaw moog Tapha Tine combat la waaw ba pare tout ngi dégg ñu naan xam nga Modou Lo Balla Gaye Balla Gaye Siteu mais bu ñu fàtte ne Modou Lo Sa Thiès bëreeguñu waaw pourquoi pas Modou Lo Sa Thiès Alioune Seye numéro 2 Eumeu Sène xaar franc ñëw wala yeneen xale yu war a egsi comprendre nga nox parce que amatul lu muy prouvé ci na ba pare Eumeu Sène fu mu la mooy xool lu ko def ko Eumeu Sène presque 16 ans de carrière 16 ans 16 ñu bëri bàyyi ñu ko xel Eumeu Sène 16 bi yëpp ñaar ñaar ñaari a ko Lo moo ko fi daal ñaari yoon ak Tapha Tine amul ku la comprendre nga nox moom amatul lu muy mu jël Alioune Seye waaw ñoo bërindoo mbapat gis nga ay ay Alioune Seye numéro 2 ay Modou Lo ay Tapha Tine ni même génération lañ yàlla dafa def ñu yàlla moo def ñoom ñu jiitu Alioune Seye numéro 2 mais même génération lañ te lim def ci euh, euh, atum ren ci làmb kenn def ko ci làmb benn mbër bu tegle combat yoo xam ne yëpp ay kaw la ay kaw la kooku kooku c'est inévitable wala ñu cax la xam nga nag affaire yi waaw ba dul droit affaire yee tàng moo tax gars yi di waaw moo tax combat bi muy amaat day wàññi tuuti rek ah, bëggee waaw kontaan ko abu jërëjëf kontaan